Euh, dab ci euh, waxtaan bi li ñuy signaler ne dafa am benn accident boo xamante ne dafa am ci diggante Ngaay ak Kébémer ba daanaka euh, fukk ak benn ñàkk nañ ci seen bakkan ci saa si dinañ ci ñëwaat incha allah pour indi ci ay leeral bu xibaar yi gënee mbir nekk na lu doy waa saa su ne accident yi bi waaw dinañ ci dinañ ci ñëw peut-être à la fin de l'émission mm. gën ci am ay xibaar yu gën a wér fi mu ne ni dañuy ñëw ci Serigne Gueye Diop mi nga xamante ne daanaka indi na ak wet gi ci tuuma bi nga xam ne dañ ko doon tuumaal di ko jiiñ euh, népotisme maanaam mu daal di jël euh, ay euh, famille am dugal leen ca bërëbu liggéeyukaayam moom nag indi na ci ay leeral. way leeral yi démb la woon ak suñu mbokk yi ITV yi mm-hmm. kilifa li ñu mën a retenir sax ci tontom mooy ni moom d'habitude sax ci wàllu politique mosu cee associé njabootam wax nañu ay doomam sax ci yeneen entreprise la ñuy liggéey. Mm-hmm. te moom ku ko xam-xam ni généralement li muy def sax mooy. jël ñoo xam te ne ay borom xam-xam la tudd na sax ci nga xam te ne ay conseil technique la yoo xam te ne ñi jëlee nañ bitim réew indi leen wax nañu sax ñi doon wax ni woy ki leen coiffé kan la mu ne ba tey tànnaguñu ko sax parce que loolu am na ci ay proposition yu yoo xam te ne xëy na voilà directeur de cabinet boo xamante ne euh, feeñagul loolu uute nag li nga xamante ne waxoon nañ ko fi ay jamono di ko euh, askane la ay mbiru népotisme <laughs> toujours ci ci ci ñan lay jógee ñan ñoo ko waxal <laughs> non parce que man xam nga man pas Ousmane man plateau yi. Mm. est-ce que ci plateau yi laay yëgee ni diw wax na diw wax na man yàlla daf ma dimbale de yéen yi dagg seen xol yi ngeen di liir di ko gis muy dagg seen xol yi man yàlla daf ma dimbali ba. nopp gar ba pare internet su ma ci duggee dama caa dugg pour wuti ji la ma soxla génnaat fa. tooguma fa. doo fa yàgg. non du ma fa non lan laa fay def. maanaam da ngay mbëkk may gabi rek. soo yàlla ma yàlla musal ci ma am jotu toog fa sax. di xool lu di wax ak lu diw waxul sérieusement yàlla ma ci yàlla musal. dëgg la. gis nga xam nga man. waaw mais ñoom bu Mm. ça veut que ñoom jot nañ ci ndax Yacine Fall indi na ay tontu leeral ci doomam bi nga xam ne dañ koo tabb ne yéegu ko sax te ci ay compétence am la ñu ko la ñu ko tabe moom it Serigne Gueye Diop daal di indi ay ay ay leeral euh, kon ça veut que ñoom jot nañu rumeur yi nga xamante ne ñenn ci ay Sénégalais ñu ngi koy waxtaane ok léegi euh, Nabou. waaw. moi j'ai trois frères par exemple. Mhm. parce que pour man euh, l'engagement c'est quelque chose c'est de personnel d'abord. Oui. Euh, ñu bokk euh, ñu bokk par exemple engagé wu ci benn parti mm-hmm. man bi ma ci engagé wu peut bu fekkee maa ci njëkk a engagé wu euh, sama ñële sama frère yi suivre ñu woon mm-hmm. dem ba benn instant sama frère yi engagé wu te du sax du man sax maa leen convaincre mais peut-être ci biti lañ génn ñu convaincre leen mm-hmm. ñun ñeent ñëpp yàlla def ñu bokk ci parti bi di ci liggéey ku ci nekk di ci def li nga ci war a def waa ëllëg ak si biir su fekkente ni parti boobu dafa si au pouvoir ma am compétence ba pare nekk ku engagé wu woon ci parti bi samay frère am compétence nekk ñu engagé wu woon ci parti bi suñ ma falee fal leen ñoom ñëpp népotisme la il faut que les gens aussi arrêtent xam nga man quand les gens disaient que oui Ablaye Wade dafa fal Karim Wade waru ko fal may leen lu tax ñu ne ma doomam la may leen donc kon nekk doom président de la république moom victime la moom tu na plus droit boo nekkee doom président de la république tu na pas droit à qu'on te confie un poste de responsabilité. mais ci nguuru président Macky Sall on avait crié Sall bi ñu naan Aliou Sall waruñu ko dénk dama taxaw carrément ne leen il faut arrêter ah. Aliou Sall c'est un militant de la l'APR Mansour Faye bu fekkente ni goro la bu nit ñi waxee dëgg bi ñuy tëgg parti ba il était présent donte boo frère la mais il ce présent fekke ñuy ko tëgg parti boobu kon kan moo ko ci ëpp cër kenn ëpp ko ci cër na leen waxante c'est-à-dire am na loo xamante ni il faut que ñu jóge ci débat boobu Ousmane Sonko wala keneen ku mën a doon dafa fal pas ñu dem di gëstu ji au lieu ñu gëstu ji background CV wu Pa Ousmane bi ñu fal Pa Ousmane fan la jaar la mooy histoire wu Pa Ousmane est-ce que liñ ko dénk mën na ko est-ce que liñ ko dénk yeyoo na ko waaye duñ gëstu ji loolu de xam nga ne ah Pa Ousmane bi bi bi bi Ousmane Sonko fal ndekete euh, euh, mindaanu Ousmane Sonko yaayu mindaanu Ousmane Sonko ba nekkoon conkesil moo ko jur cest à il faut qu'il nous aide ba pare il faut que ñu dimbali population yi. moi j'aime bien quand on s'oppose mais dafa war a objectif dafa war a nekk loo xamante ni tu aides yow yaa ngi dimbali ñi ñi nga ñi nga ñi nga ne ñoom ngay opposé wul ba pare yaa ngi dimbali le sénégalais parce que il ne faut pas être allergique aux critiques et aux remarques ouais. et je pense que le président de la République Bassirou Diomaye Faye quelqu'un que j'ai écouté entendu parler c'est quelqu'un qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas euh, allergique aux critiques parce que quand il dit que j'encourage les journalistes de faire leur travail comme ni nga ko war defee parce que dañ may dimbali bu boobaa ci jub jubal jubbanti bi mm-hmm. donc maa ngi leen di encourager ñu def dëgg dëgg dëgg dëgg le journalisme pas bañ a def le parparlolisme ak la ak la politique. comme li ñu fi gisoon. wa ilaa su fekkente ni dañ may jéem a chantage. Mhm. c' est peine perdue parce que man xaw ma sax lu ñuy woyee. Mhm. lenn la ñuy mujjee bu boobaa mooy di def ay diffusion de fausses nouvelles ak ay diffamation te bu boobaa ñoom ak ñañ ko def la ak yoon. Mhm. mais buñ ma dimbalee waxal ma ni ma yow Basirou Diomaye Diakhar Faye président de la république pas Ousmane mi nga dénk poste nangam. mu ngi koy def naka su dul noonu ma dem gëstu ko gis ni dëgg la ah là ñu ngi may rendre service bu baax parce que loolu laa bëgg ci journaliste kon kooku il n'est pas allergique aux critiques waaye tey jii nii nga war a signaler Bassirou Diomaye jaxaar fay wala Ousmane Sonko la boo ko jox la bon information li sénégalais yi di xaar nga topp ko naan ko wéy yow de ministre bi nga kii fële après gis nañ ni sax moom ca wet ca geneen wet ga doomam kii na ab te xoolal loolu mooy occuper une journaux yi mais c'est grave ça nañ bàyyi saboté bi <coughs> dinañ dem ba buñ waree wax dëgg wala lu baax les sénégalais sénégalais dañ naan non ces gens là ils sont habitués à nous donner des fausses informations ou ils sont habitués à parler du du n'importe quoi ou à mentir même d'accord d' accord euh, ajaratu Mamy ndax mën nañoo jox euh, du crédit kàddu yi nga xamante ne euh, ñenn ci presse bi dañu koy yëkkati gis nañ l'histoire de si Faye bi mu amee woon ñu ne dafa am ay lien de parenté daanaka lam war a def du ko war a def tey ñu ñëw ci Serigne Gueye Diop ñëw ci Yacine Fall donte ñu ci bëri nee nañu dafa am une certaine presse boo xamante ne seeni wax jarul dóor sa doom mais cette certaine presse bi nga xamante ne seen wax jattu jattu doo sa doom kon. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne ñoo fi toogal euh, sunu tribunal yi fi toogal di àtte. Mhm, yor seen table boobu ak seen bato boobu di juger. Mhm. journalistes yi ñi nga xamante ne duñu joxe ay euh, les les bonnes et les vraies informations ba. dañu war a am également sanction bu topp ci seen ginnaaw. nit warul mën a am liberté xëy rek ci sa yéene kaay parce que da nga bëgg mu jaar. eh bien nga tuumaal nit loo xamante ne amul man fii laa toog ne Serigne Gueye Diop. doit communiquer et nous oui. dire la vérité des faits par rapport ak coow li nga xamante ne moom la ñuy